waaw loolu moom dëgg la parce que man dama ne woon bi may nekk candidat man leen dama bëgg nekk candidat candidat consensuel mooy candidat boo xamante ni ñëpp dañ ciy ànd soo leen seetloo sax à l'époque dama doon wax ne damay am onction d'en bas onction d'en haut onction d'en bas mooy dama ne woon dañuy waxtaan ak nit ñi ci suuf après nag waxtaan aussi ak kilifa yi ci kaw mais candidature boobu soo buggee mu nekk candidature consensuel da ngay jël temps soo buggee nekk candidature consensuel da ngay nangoo waxtaan si vous avez une candidature consensuelle vous avez une di Joko. loolu moo nous ñu commencé waxtan bi su à seetloo nous am nañu ben kuréel bu ñuy woyé comité d'initiative de la l'APR pour avoir des candidats consensuels aux élections territoriales courriel bobu commencé nañu waxtan bi man limu bëgg ci waxtan bobu moy mu am ay candidats consensuels Il man ñu am candidats consensuels au niveau de la commune de l'Est au niveau de la commune de l'Ouest, au niveau de la commune du Nord. Nous avons aussi candidat consensuel au niveau de la ville. am candidat consensuel aussi au niveau du département pour man rek comité d'initiative de la PR boobu dañu liggéeyuñu pour man rek dañuy pour tous les candidats à toutes les positions ci biir APR nag ñu ngi ciy waxtaan te yaakaar nañ ne dinañ ci juboo suñu demee nag ba waxtaan ak ci biir APR ba pare ñu yaatal aussi coalition Benno Bokk Yaakaar boo des partis, qui yu bari partis fa parti partis qui aussi partis am solo ci partis ci des partis qui même consensus ñu au niveau de l'APR suñu ci la coalition Benno Bokk Yaakaar aussi ñu waxtaan ci ba nga xamanteni dinañu am à tamit ay donc leen ne dama bëgg nek candidat consensuel mais consensus bobu man ko tek ci waxtaan ba ko négociation man ko bon c' que président conseil départemental Souleymane Ndoye moom chaque fois man suñu may wax ne moom candidature am damay xaw a jaaxle ndax man musuma koo dégg moom mu ne candidat la man li ma jàppoon mooy moom dafa nekk président conseil départemental def liggéey nag bi mu defee liggéeyam ba pare mandat bi jeex dama jàppoon ne moom day jàppaat day day ut ñaareelu mandat te am na ci droit ndax soo defee benn mandat am nga droit ñaareel mandat donc man musuma koo dégg mu ne day nekk candidat à la mairie de Rufisque waaye nag su fekkente ne daf ko nekk man ak moom ñoo bokk parti bokk coalition bokk Tëngéej di ay mbokk bokk APR bokk kilifa bu président de la République Macky Sall mun na nañoo waxtaan waxtaan bi pour lan waxtaan ba jubo ba nga xamante ni dinañu éviter li ñu daloon 2014 parce que 2014 li ñu bari woon candidat moo taxoon fii parti président de la république coalition Benno Bokk Yaakaar ñàkk fi élection yi moo tax Tëngéej nekk dëkk boo xam ne dafa yàgg ci opposition te dëkk bu mel bu bu mag bu mel ni Tëngéej doo nekk ci opposition dëkk bu mag bu mel ni Tëngéej maire bi day nekk parti au pouvoir maire bi day bokk coalition pouvoir maire bi day jege président de la république maire bi day liggéey ak état ba nga xamante ni dafa am loo xamante ni maire bi dina ko liggéey leneen li état jàppale ko ci mu liggéey ko donc candidature bi daal jàpp naa ne euh, dañuy dama dégg keroog ñu ne la guerre de Rufisque aura lieu ma ne man de yaakaar naa ne la guerre de Rufisque dina nekk comme la guerre de Troie elle n'aura pas lieu parce que la guerre de Troie n'a pas eu lieu donc jàpp naa ne guerre de Rufisque du am et jàpp naa ne man ñii fi nekk ñëpp muy maire yi muy euh, yeneen candidats yi mun nañu waxtaan. avec l'aide du président de la république Macky Sall avec l'aide du parti mun nañu waxtaan ba nga xam dinañu trouver ay formule yo xamanteni duñu dem euh, séparer diviser wu ba nga xamanteni opposition bi na gagné. ngeen ma sàngal kam xanaa yow rivalu Omar nga foofu man dëkkuma sàngal kam donc fi ci Tëngéej yaakaaru mom mun fi am rivalité ci kaw te yaakaar naa ne moom def mu bañ duggal loxom ci affaire investiture Tëngéej parce que mom dëkkul Tëngéej Fi liñu bëgg moy investiture bi wa Tëngéej séq ko. waa Tëngéej waxtaane ko ñi ci kaw tamit muy suñu kilifa président Macky Sall suy waxtaan mu waxtaan ak ñun waa Tëngéej parce que suñuy def tam investiture bari ñi ñu waxtaan ak waa Tëngéej suñuy def investiture Diamniadio ñu waxtaan ak waa Tëngéej suñuy def investiture Sangalkam ñu waxtaan ak waa Tëngéej donc lu ñu bëgg mooy fii suñu investiture ñun doomi Tëngéej ñu seq ko décider ko